wala listixaar wala duhul listixaar wala fiida ceer ko annabi mo Allah andi ni gele o wii mu ko kaawɗaa ko toɗɗaa ni no neɗɗo way yidde jam noo yi dañ. mu ne ni nga am am. mu ne bu demee ba baram toog dal. xaw ma ba baram xalaat. o andi. mu ne mu xam. koo wiyata ko. mu ne li muy wax. e koo tooñata ko. ak li muy tooñ. gaaga Allah yidaa ko. mu ne li gannaaw yàlla buggul. nelaare yidaa. yonent bi buggul. mokkube yidaa. lu baax buggul. hay su wanaa buggul. hay su dul duhul loolu. ko la kay joori. mu ne waaye léegi. o andi ena bone ma. waaye xam na lu lu baaxul. ba ɗamini sa. mu ne yaakaar na rek. e jinnooro so siftori. mu ne kii fàtte woon bu fàttali ko. mu andaano so andi. mu ne kii xamutoon bu xamee. Awusosea. Mwana kubamba atano manjeku. Awusosea. Mwana atano manjeku tuti. Kono no. Mwana wali nak. Awudisi dama. Mwana wali kudiga ubiga punta. Jol. Mwana leji. Lebe leya. Mwana nunchi topare. Mimi fo kiti. Mwana mom dana. Gondo yore ya. Mwana kelen na topo ci mom. Gondo yore ya. Kelen na topo ci mom rek. Yeda ta ko. Mwana du. Kono tafsir Moustapha ɗo ko pop enana saawi e makko o wona leylude o wona leylude hen ruhu ko wona noon en mbayata e makko ɗum baade mo ronde ndimmeral mu nekk ko lii tax yàlla def no mbaɗen makko ni mu ne ni no mel ci moom nii oɗo façon mu ne nii ci façon bi oɗo ñaaw mu ne ci bés bi o o mu ne ci jëmm ji ngal ɗo teddu ndeɗo welta ndeɗo softe gonɗo immamo aɗa andi ko allah immine allah waɗiri en noon ah, o waɗino noon kono hannde o waɗani noon komo wonno nan ko def loolu tey watte ko noon hakkille gis nga jëf jëf jëfam dem o gayni mu pare allah ƴefti yalla jël kañum gaynata moom du jeexal num yàlla diina waɗana mo wona bu def yàlla di koy defal loolu ci ginnaaw sen sen tini mu ne buñ xamee loolu ko ɗum mu ne loolu la sen tinaani mu ne buñ ko xamul woto ko yo on deec mu nekk nag ku nekk ci ñun wi hoto yaa noon mooy jërë kay. mu ne ak mbaax. wa kañ mu xaaral di wóor mu ne mbaax ak mbaax mooy wax boppam. ay moƴƴe mu ne gis nga mbaax wona an yii mu ne man maa koy gis de mu ne sax gis-gis ko dernier mu ne ci dafa mujj min mu ne moom yiideme mu ne ak yi di mu baa gitema mu ne ku la neexee laq say bët won gadiɗoma yii am na ku la jiitu ci gis ko وانا الله بيه من يلا ما وقل له وقل قيمه فسيرى الله فسيرى الله عمركم ورسوله ورسوله والمؤمنون, والمؤمنون. سؤال لي من يقول بيا ما جيسه لا لا بي يرن تبي جيس هو بي جي يرن تبي جيس سلام الله يا ولا ني خير ده جاي جيس سلام الله ولا ني خير gis ko yow. wala waaw waaw xam ni. mu ne waaye munoo tere ñeneen gis ko. ah waaye mu kuti man ngaa gëmma say bët. wala waaw mu kuti gis. munoo gëmma say ni bët. yow nag mën ngaa on tinnima wona gorgorlugel on tinnima gorgorlugel on juumani de wona juumulen on perdani wona perdiwulen on tardani wona demulen ciginaw on mankani wona mankiwulen on mankinani wona mankiluwlen on jasani wona